ko Sénégal yàlla yombalal ko ko ba lim ciy yóotu yëpp mu jot ko ñun nag waa Njaareem appel bi may lancé rek tere politique benn durée très bien déterminée la koo koy wax nag mu nekk ci du ko gëm waaye lépp lu am tàmbali nañ jàpp ne am na jeexantal te àdduna lu doy amu fi lu ñu doyloo moo fi am kon nag ñun ñiy ndaw nañu ànd ci li ñu doyloo li ñu doyloo mooy benn bëgg-bëgg toog autour de l'essentiel pour que Diourbel am beneen xar kanam loolu nag dafa am lu ñu lu mu laaj li mu laaj mooy bokk ndey bokk bàyyi xàccandoo dóorandoo li fi nekk yëpp ci wax amul njëriñ li am solo mooy benn bokk yaakaar benn coordonnateur la muy monsieur le ministre Dame ko ko xam nag mooy ndey ji seex moom bañ na ko ba lépp luy jàngoro askan wi bu amee day xañ APR jox ñeneen kon yaakaar naa ni nañ bàyyi wax ji te bokk ndey bokk baay te xam ne Diourbel ñoo ko bokk mun ñu ko séddoo loolu moo ne woon yi je vous